di leen nuyuwaat bu baax di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ko baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def ñu dëgg dëgg jullit waaye dellu rek di ko ñaan mu sàmmal ñu suñu imaan ba bu ñuy dem ca moom ñu yóbbaale ko ngëm gi dara bañ cee yàqu dara bañ cee fënax dara bañ cee manqué ba mu mën a kontaan ci ñun moom suñu borom subhaanahu wa taala macha allah xam ngeen ni ñu ngee yéen seen sar moom soro bi di suratu nisaa yi jotaayu tafsir bi ñu mujjee def ak yéen amoon nañ ci saar bi di suratu nisaa yi téeméeri aaya yu teg fanweeri aaya ak ñeent 134 verset tey ñu war a jël kon téeméereelu aaya bu teg fanweeri aaya ak juróom muy 135e verset ci seen saar bi di suratu nisaa yi ndeysaan bi du démb bi nag euh, góor ñu bari daal dinañ ma daal wax dëgg yàlla dafa mel ni dama dal seen kaw ma leen du man de yàlla la de yàlla la rek borom bi subhanahu wa taala moo bawul dara moo bawul dara alxuraan yenn saa yi moom dalay song rek war la te fas du la fas yéenee wàcc ngeen xam ne lépp lu ñu doon wax rek ñun ñëpp nañ ko jàngat rek te dégg ko parce que aussi àjjana dafa neex de safara dafa garaaw kon lépp lu ñuy yóbbu ca safara nañ ko moytu lépp lu ñuy xiirtal jëme ca àjjana nañ ci gën a góorgóorlu mbokki tey ñu war a jël 135e verset borom bi subhanahu wa li euh, euh, ci wax ak gaa yi gëm yàlla ni yaa ayuha alladina amanu kunu qawaamina bil qist borom bi subhanahu wa taala nee na yéen gaa ñi nga xam ni ci seen làmmiñ wax ngeen ba ñépp dégg leen ngeen ni gëm ngeen bokk ngeen ci daairatul iman mu ñi nga xamante nit ñooy woowee seen bopp ñi ngëm ñi gëm waxoon naa leen ko nag te boo demee ci xadis ba doxoon ci diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak Jibril ca seen jotaay bu am solo boobu bu taaru bu rafet bu jekk boobu bokk na ca lam ko laajoon xamal ma lan mooy al mu limal ko an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi e, wal yawmil axir wa tuminu bil qadri xayrihi ni ko loolu mooy mooy mooy iman yàlla yonent bi yi téere yi malaaka yi yowmal qiyaam gëm dogal bu neex ak bu naqari ensemble boobu ngay boole pour mën a am imaan boo ci manqué rek sa iman day manqué te ñun du ñu bàyyi xel nawaqidul iman ni ngay xoole di xool lan mooy yàq sama julli lan mooy yàq sama koor lan mooy yàq sama njàpp noonu lañu war a xamee lan mooy nawaqidul iman lan mooy wàññi suñu ngëm di ko yàq ndax fee moom ku yó ku yóbbaalewul ngëm doo dox doo doo fa baax de il faut ñu yóbbaale ko mu ne moom borom bi nag yéen ñi gëm yàlla nekk leen di ñu taxaw temm ci ak njub xawaamiina bil xiste la suñu borom wax borom bi nee na ñi gëm yàlla fexe leen ba taxaw temm taxaw temm mooy xawaamiina waaw taxaw temm mu tëgge ko ci mm, siixatul mubaalaxa wala di waroo tey jii nga jub ëllëg nga dëng déedéet waaye taxawal temm ci saa su ne rek looy def nga koy teg ci njub ak dëgg taxaw leen ci dëgg parce que dëgg dafa neex ci bun la ko joxee waaye dafa metti ci bu dalee sa kaw waaye lu mu metti metti ci bu dalee sa kaw war nga xalaat ni bu ñu la ko joxee te nga moom ko day neex ci yow kon bu ñu la attee ci dëgg bul mere ka la atte qawaamina bil qisti taxaw leen ci rek shuhadaa lillah allahu akbar mbokk yi borom bi nee na booy seede seedeel loo xam te yàlla rekk na tax ngay seede suhadaa lillah loolu lu garaaw la de ndekete bari na nit kuy seede te yàlla taxul muy seede day wax rek waxandoo rek moom daal wax na daal ba génn ci fekk ni seedewul li muy seede yàlla tax moo tax mu ni suhadaa lillah seede leen li ngeen di seede ngir borom bi subhaanahu wa taala seede leen te yàlla tax mu ni walaw ala anfusikum nag doon télé li ngeen di seede ci seen kaw lay dal gis nga yàlla dalay wan ni la nit nit boppam rek la nit dafa bëgg boppam bala mu caa teg kenn moo tax mu mun ko dëgg gi même bu dalee sa kaw dañuy wax ni sëriñ ba ba mu waxee taalibe ba ni ko taalibe bi am doom mu ni ko seetal ki nga gën a bëgg nga tudde ko ko loolu la ko sëriñ ba dox ñu jox ndigal ni ko seetal ki nga gën a bëgg nga tudde ko ko taalibe bi ba mu demee dafa tudde bu doom ji boppam ñëw sëriñ bi ne ko noo mujjee tudd ma mu ne ko tuddee naa ko sama bopp mu ne ko ah, ah loolu tax mu ne ko yaa ni moon naa seet ku ma gën a bëgg te man sama bopp ma gënal ñëpp ma ne ko ah xel de li maanaam maanaam maanaam li nopp di dégg de nangu na ko waaye lislaam nangu ko ndax laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi waaye yàlla xam na ni nit boppam daf ko ñor moo tax mu ni wala wa ala anfusikum gis nga dëgg yi doon tele day dal ci sa kaw seet ci yàlla shuhadaa lillah seede ko ngir yàlla walaw ala anfusikum ndax lépp lu ñu fi seede dinañ ko seedewaat ci kanamu yàlla a ah, mbir mi xam nga ni boo ko àttee teg ko ci yoon yow du la arrangé nga fexe ba wëlbati carte gi taxo doxale ko ne ngir mucc ci yow waaw ah, ngir mucc si ah du noonu de bu dalee sa kaw sax waxal dëgg walaw ala anfusikum mu teg ci lan ayul waalidayni wala seeni way jur yow xam nga jinni na sa jëmm yow sa bopp bu dëgg gi dalee sa kaw nangu ko booy àtte li li nga ci li la ci dal yow te du dëggit nangu ko mu teg ca awil waalidayni wala say wayjur moo xam sa ndey la moo xam sa baay la sooy àtte bul sédd ni kii sama ndey la wala kii sama baay la ba moomul dëgg nga koy jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw soosu sàccoon te bokk ci ñu ni bokk na ci yax bu rëy comme ni ñu koy waxee rek donte la du waxi dara mu ni ñu jàpp ko ci càcc biñ ko waree dagg loxoom am ñu ñëw ci yonent bi naan yabal Usaama ibn Zayd Usaama doomu Zayd la moom la daan wax alxib ibn alxib parce que yonent bi daf ko bëggoon defoon ko sëtam ndax dafa bëggoon baayam di Zayd nga xam ne da ko doomoo woon ba yàlla ni maakaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum bu soo ko dégg mooy da koo adopté woon Zeyd ibnu Muhammad sax lañ ko daan wooyee waaye bi loolu dajee si ko doon wax Zeyd ibnu Xaarisa bari na lu am ci histoire ndeysaan mu nga des ca xaswatu Mu'ta keroog xare bu rëy boobu nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam xawal soldats yi ñu war a dem mu ni na Zeyd ibnu yor drapeau bi su xeexee ba daanu na ko Jaafar yor bu xee ñii xeexee ba daanu na ko Abdullahi ibnu Rawaxa yor bu nu daanoo nag ñoom ñett ku ngeen ko ti baax allahu akbar noonu la ñu daanoo kenn par kenn ci xare booba ci xaswatu Mu'ta mbokki jullit yi keroog Usaama daa ñëw ci yenente bi di ñaan di di intervenir ngir ki ñu bëgg dagg loxoom te mu bokk ci famille bu baax yenente bi keroog dafa mer li muy bëgg bëgg bëgg Usaama Usaama yow yaa may jéem a indi intervention ci lu yàlla tëralal boppam wallahi yaa Usaama def ko waatal keroog ni ko maa ngi lay waatal li fatimatu bintu muhammadin bu sàccoon ma dagg loxoom loolu la yonente bi wax keroog fatima sama doom bu sàccoon ma dagg loxoom waaw ah, parce que nag wax dëgg yàlla ak caat moom euh, dafa doy waar de wër di sàcc rek ñu leen di bàyyi noonu rek ñuy wër di sàcc nit ñi nii rek xam nga bu bu ñu dogal doxal loolu lislaam foofa léegi mbiri sàcc jóg fi dafa dëgg yàlla comme moom sooy sàcc say loxo ngay sàcc bu ñu daggee loxo di leneen lu dul sàcc yow léegi sàcc du métti ba leen sàcc gi mu ni kon awil waaliday ni kon say wayjur say wayjur it bu dëgg gi dalee ci kaw da nga wal aqrabiina ak jeg mbokkum jege ñaale jëlal sa doom jëlal sa frère jëlal sa sœur ku la mën a jege ku ne bu dëgg gi dalee ci kawam bul fa nekk naan kat kii suñu famille la quoi su ma bàyyee lii feeñ day yàqaale suñu deru famille quoi te te loolu day daf may saliir ah daf lay salir ba tax nga war koo jox dëgg gu mu moomul ndax yow sax du jëmmam ngay xalaat mais sa bopp ngay xalaat ak seen dette ak seen famille quoi bu ñu déggee ni moom moo def lii te bokk suñu famille loolu daf may laalaale mais garaawul naa naa naa fexe ba tappale ba jox ko boo demee yàlla dina ko lijjanti ak yow sooy yegg suñu boroom dina ko lijjanti ak yow mbokk jullit mu ni in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awlaa bihima mu ni moo xam nag ki nga war a àtte ci moom dafa yor dafa yor doon ku am wala mu doon ku ñàkk yàlla moo gën a yey fallahu awla bil ganiyi wal faqir wa aalamu bima fihi salahahuma faraau amra allahi fi ma amarakum bihi fa innahu aalam bi masalih al ibadi minkum yàlla moo leen gën a xam ci jaam yi moo gën a xam la gën ca ñoom lii nag dafa doy waar mooy in yakun ganiyan nit ak yii am na problème mais dafa yor alal yow yàlla nattu la ngay ku iñaan yow ku yor rek nga mer yow ku yor nga mer bu nit amee oto nga mer lu tax mu am oto su nit amee promotion nga mer bu nit soppee train de vie nga mer yow daal ku yor nga mer nit ki dëkk yow ci koñ bi yorul woon yàlla di doxal jamono ba mu xëy yori teraanga yàllaa ko ko jox kenn joxu ko ko suñu boroom la mu am loolu nga mere ko ci loola mu am ku mu joteel mu leer la ni moo am dëgg nga nga nga jox la dëgg nii la ñuy def rek ah. bu ñu di jaay nit ñi seen alal ji tax ñuy def lu leen def fekk ni koo da nga koo iñaane yàlla xam na ne defu la dara loolu baaxul bukki loolu dafa rafetul te dafa baaxul moo tax yàlla ni la lu mu am am am am bul ko xañ dëggam ndax am na ni wane ni dafay jaay doole bu ko def benn ñaareel bet bul ko jox dëgg gu mu amul ndax am gi mu leer la yow kii moo tooñ waaye comme moo yor alal te yow yaakaar nga ni yow moo la ciy mën a génne saa su nga ni naa ko jox dëgg gii naa seede loo xamante ni wóor na ma ni du dëgg ndax kat xëy na loolu mu xem mu bàyyi xel ci loolu boobu ëllëgee mu gën a yokk la may dimbalee nee na baaxul aw faqiran wala ku ñàkk nit ki daal dafa ñàkk tax nga war a àtte ni ah, kii daal yorul dara nañ ko nañ jox xëli dëgg waaw yi la ñuy nekk ba doole yor ñu di tooñ di tooñ borom barke yi ndax lan alal jëng ci suur di ko sosal yàlla nee na bu ñàkk googu tax mu jote ak boroom barke nga jël dëgg nga jox borom barke ñaari nit dañuy dëkk kii am doole kii ñàkk doole am genn ku ne am këram borom doole ji ñëw dugg ci biir kër ki nga xamante ni dafa ñàkk ñu dem nga bëgg ko rek bàyyi noonu xoolal amul problème lii lim ci dugg parce que xam nga ni dafa yor nga yaakaar ni moom mën na laa defal leneen tax nga may ko dëgg googu xañ ko ki baaxul tax bu amee bul ko jox dëgg moomul waaye bu ko xañi dëgg moom waaye bu ñàkkee la même chose bul ko xañ dëggam fekk ni moo ko moom waaye it nag bul ni comme dafa ñàkk anu kii amul doole soo ma ko seetaanee dañ ko fiy teg ay coono ay amande fii ay lii ay laa day metti ci moom naa ko faral rek benn yoon boo ko defee def nga lu garaaw boo defee ne yërmande googu yàlla moo la ëpp yërmande moo tax mun la fallahu awlaa bihima yàlla moo gën a yey ci ñoom ñaar xam na ku ci nekk la gën ca moom kon la gën mooy ke dëgg nañ ko jox dëggam ke moom dëgg nañ ko jox dëggam fallahu awlaa bihima yàlla yàlla moo gën a yey ci ñoom ñaar ñëpp ci ki am ak ki ñàkk yépp suñu boroom moo gën a yey ci ñoom ñaar mu ni fala tattabi al hawa an taadilu mu ni rikk waay rikk waay bu leen topp mukk mukk mukk mukk bànneex seen bànneex ak lu leen neex ba tax du ngeen maandu bu leen ko def topp sa bakkan rek ba tax maandu gi nga waroon a maandu doo ko def moo tax ibnu kasir ni laa yaxliman laa yaxmilannakum alhawa wala asabiya wa buxdu nnaasi ilaykum ala tarki al adli fi shuunikum bal ildamu al adla ala kulli xaalin nee na bu fekkente ni bu la tiitaru àdduna bu la bànneexu àdduna bu la sa bakkan wala asabiya muy def apartheid ko gisee jamono dan daan wax naan l' apartheid contre l'humanité parce que loolu moom l'islam da ko bañ yonent bi nee na laa asabiyat l'islam amul loolu ay ay apartheid ay bot di ci biir xeet waaw kii de ah kii ñoo bokk race naa ko défendre ndax ñoo bokk olof la comme man séeréer la comme man tukkulóor la comme man joolaa boo ci def def nga lu xaram lu bon waaw non ñii dëkkuñu ci dëkk bi waaw France gée la jóge te yàgg nañoo def suñuy maam yu bon yàgg nañ leen a jàpp buumu njaam yàgg nañ leen def xaaral ma profité waaye kii dëkk ci dëkk ma jox ko dëgg du ma ko doon joxee du jullit ak lépp a ci yam bu amee dëgg jox ko ko loolu la loolu moo tax mu labul topp sa bànneex ba bañ a ba bañ a maandu de mu ni wa in talwu bu ngeen leem leemalee maanaam war a wax dëgg ji di tay taylu di di damm sa làmmiñ ak pour wëlbati wax ji. pour bañ bañ a comprendre aw tu'ridu wala ngeen dëddu wane ginnaaw ki ngeen war a jox dëgg joxu leen ko dëgg wala na ngeen ko war a waxee waxu leen ko di tappale di def yooyu yëpp lu ngeen ci def xam leen ni nit ñi ngeen di nax waaye fa inna allaha kaana bima taamaluuna xabiira suñu boroom subhanahu wa taala nee na moom day xaw musula deñ di nekk di aji deñ kumpa ci lépp lu ngeen di def loolu borom bi subhanahu wa borom bi subhanahu wa taala nee na la deñ di dañ kumpa ci lépp lu ngeen def yàlla dara ump ko dara ump ko kon looy def tappale goo ci def triant goo ci dugal ak par parloo goo ci def borom bi subhanahu wa taala dina la ko laajaat yowmal qiyam yàlla ñu yàlla musal ci par parloo waaw féete nag aayul kenn ku ne ak nga féete waaye féete nag taxu la par parloo par parloo jox kii dëgg te amu ko yàlla nee na bul ko def gis nga ba mu jógee foofu rek dafa dellu saat beneen nidaa nidaatu rahmani li ahli liman benn jàll na mu ñëwaat ni la yaa ayuha alladina amanu aminu yéen gaa ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla gëm leen yàlla xam nga loolu moom kenn du ko comprendre moo tax nga borom xam-xam yi nii boo ne yaa ayuha yéen gaa ñi gëm yàlla aaminu sax leen ci ngëm googa sax leen ci mbokk yi su jot ngeen dégg ma koy wax su ma yóbbi sama waxtaan yàlla nañu yàlla def dégg dégg julli sàmmal ñu suñu ngëm bam bañ a rëcc ndax kat nit dina am imaan ndeysaan dem ba yàgg mu rëcc ko day rëcc te dafa gaaw dafa ñoo xam ne dañuy sax tafu sa imaan yàlla xam na ne ñu tafu sa sa sa porte monnaie sa sa sa sa visa sa carte visa ne sa sa carte d'identité ne sa sa sa passeport boo xamante ni amoon nga ci visa Europe ak Amérique ak fépp nekk ca ak lu ne yóbbaale sa alal yóbbaale ca sa porte-monnaie boobu moo la war a gënal te moo tane moo la war a gën a taneel ñu tafu sa pas-pas te gars yi ay am na ñoo xamante ni ay agresseur la ñu garaaw ñoo xam ne ñoom pas-pas rek la ñuy jël de soxlaw ñu xaalis ñoom sa sa ngëm moom la ñuy fexe rek nuñ ko jëlee rocc ko ñoom loolu rek ka leen intéressé sa imaan sa imaan daal lañuy seet nu ñu koy yàqe jël ko moo tax mun la ah aminu gëm leen yéen gaa yi nga xam ne yéen a wax ni dangeen a gëm sax leen ci ngëm googu tey téye seen gëm aminu kan sax leen ci ngëm ci kan billaahi ci yàlla wa rasuli akub yonentam bi leen di wan ni ngeen di gëme seen borom gëm leen yàlla te sax ci gëm ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ndawul yàlla li leen di wan fi ngeen di jaar ba yegg ci yàlla waaye wal kitaabi alladi nazzala ala rasulihi ngeen gëmit téere bi nga xamante ni wàcce nañ ko cib yonentam muy alquranul karim bii nga xam ne moom la ñu tiim di ko firi mbokk yi nañu gëm téere bi jullit day gëm alquran gëm ni kii mooy suñu constitution kii moo ñuy atte kii mooy doxal suñuy mbir dañ koo war a gëm kii di alquran mooy suñu constitution mooy doxal suñuy mbir moo ñuy defalu jagle moo ñuy defali xéewal nañu ko gëm te mu leer yaa ayyuha alladina amanu aminu billahi gëm leen yàlla se sax leen ci gëm yàlla akub yonentam mu wan leen ni ngeen koy gëmee ak téere bi ñu wàccee ci yonent bi waaye wal kitab wal kitab alladi unzila min qabl acteurs yi nga xamante ni wàccee nañ ko lu leen jiitu ab saa ne al muraadu bil kitaab al jins al munazzam li jamii al kutub al samaawi mooy téere yi nga xamante ni moo tax daf waxu la fii kutub waaye mun la al kitaab xam nga bu la waxee wal kitaab alladi nazala ala rasuli nga xam ne mooy alquran mu ñëwaat ni la wal kitaab alladi unzila min qabl lim ci jublu jublu ci foofa tawraat dem ci jublu ci injil jublu ci zabur waaye lan leen woon inna hada la fi suxufi l ula suxufi wa moussa gis nga téere yi fi nekkoon yépp soo ko boole mooy doon kitaab bii mu la wax la gëm ko mu ñëw nag ci wàllu iman boobu nii ku ko weddi mu ni wa man yakfur billahi képp koo xam ni weddi na yàlla képp koo xamante ni weddi na yàlla wa malaikatihi mu weddi malaaka yàlla yi wa kutubihi mu weddi téere yàlla yi wa rusulihi mu weddi yonent yàlla yi wal yawmil axiri muy weddi yawmal yawmal qiyaam ni dina am kii day faqat dalla dalalan baida yi na kii sànku na sànku bu sore sore sore la réer fii nag arkaanul iman alqadar rek la ci deful def na iman billah malaayika kutub rusul yowmal axir kon bi mu fi ci manqué rek mooy dogal moom la ci deful fii kon gis nga nee na gis nga ramadan ramadan ya habib macha allah mbokk yi ngeen jéggal ñu rek ci dog dog bi amoon macha allah ci wàllu liggéey bi rek la ay waaye ñu xam ni rek ba léegi ñu dellu siwaat ak yéen ci fi ñu yemoon ci seen saar bi ñu ngi woon ay 136 mu daanu ñu war a jël aaya 137 seen saar di suratu nisaa yi ñu am ci téeméeri aaya ñu teg fanweeri aaya ak juróom-benn ñu war a jël nag téeméeri aaya bu teg fanweeri aaya ak juróom-ñaar kon ñu ngi daanele woon léegi la dalla dalalan daal mu ni képp koo xamante ni weddi nga yàlla weddi malaaka yi weddi téere yi weddi yonent yi weddi yowmal qiyam nee na kooku day réer na sànku na sànku gu sore sore sore mu ñëwaat nag ci gaa yi am imaan mu ne inna alladina amanu gaa ñi nga xam ni dañu gëm yàlla su ma ñu dem ba ci yàgg kafaru ñu ne ñu daal weddiwaat nañu yàlla su ma ñu demaat ba ci yàgg ah man ñu ñun daal far nañoo xoolaat xam na ni lii mooy dëgg ñu dugg ci summa ñu demaat ba mu neex leen kafaru ñu weddi bii nag summa daadu kufran yamuñu ci weddi waaye ñu dolli sax ak weddi weddi ba dëng pour wane ne wax dëgg yàlla ñoom léegi moom kenn mënatu leen a indi ñooñu nag pexe amatu ci nag lam ya ñooñu nga xam ne ñoo def loolu yàlla ni ñooñu de lam yakuni llahu li yaxfira lahum yàlla day nekkul di ku leen di jéggal seen loolu ñu def ñoom yàlla du leen jéggal du leen baal mel ni yow diine ji moom ping pong la boo xam da nga koy fooy rek tey gëm naa suba weddi naa gëmaat naa weddi naa gis nga boo koy def li tax mu garaaw mooy boo sàgganee rek dangay mujj surux ci kàmb gi mën ngi dal ni dem ba mujj gi nag seen weddi gu mujj gi moom non seulement génnaatuñu ci weddi gi waaye su masdaadu topp ñu dolli kufran ak weddi yàlla mu ne ñooñ dey bul sonn lam yakku ni laaw li yaxfiralum yàlla nekkul nag di ko leen di jéggal moom parce que nag ñoom ñoo def loolu waaw yàlla newul di ku leen di baal ñu ne fii tey ñu def lii ëllëg ñu def wala li yahdiyahum sabila nekkul di ku leen di gindi di leen teg yoon wa leen jëme àjjana non non du ko def du ko def nekkatul di ku fi nekk naan da leen di gindi ak da leen di teg ci yoon wu leen jëme àjjana borom bi subhanahu wa taala amatu sax seen jot du ko def allahu akbar moo tax boo demee si Zamakhshari mu wax la ci lu am solo nee gis nga même bu ñu néewoon dañuy tuubaatit ginnaaw ba nga xamante ni weddi nañu ba pare taral seeni weddi yokk ci ba mu tara tara tar nee bu ñu bëggoon a ñëwaat yàlla du dul sax faale parce que yàlla moo dul seen fowukaay moo xam ne dañ koy mm, yàpp tey ñu def lii wala sax daal ku miin sa xulloo da lay yàpp waaw koo xamante ni minute bu ne mu wax nga def minute bu ne mu wax nga def koo xam ne dafay dëkkee tooñ kooku neexu la mm, muñal waaye nag mm, la góor ga waxoon rek ku dëkkee tooñ doo mucc waaye ku dëkkee fayut doo noppalu waaw ku dëkk ci tooñ doo mucc moom waaye ki dëkk di fayu moom it du noppalu waaw yàlla nag nee na wax dëgg yàlla doo day tool foo xam ne dootul amati sax seen jot nag waaw parce que dañuy mel ni kuy foo te ñoom ñoo am joti fo ndax yàlla amu ko ndax nee na afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakum ilayna la turjaun nee na yaakaar dama leen bind ngir fo wala ngir ay caaxaan nii aw ma sax jot googu man seen borom aw ma sax joti caaxaan ak i fo kooku na leer suñu bopp borom bi subhanahu wa taala di ñëw ci gaayu garaaw yi mbokk yi yéen a ngi ànd ak seen télévision 2STV seen émission tafsirul quran ma sha allah wala dugg aaya 138 téeméeréelu aaya bu teg euh, fanweeri aaya ak juróom-ñett yàlla di ci wax ñu garaaw a garaaw aywa mbokk yi déglu leen yàlla ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam bégalal naafiq yi loolu waxin la xam nga wax dëgg yàlla ay mbugal kenn du ci bégal nit kenn du ci bégal nit waaye da da leen koo yëjjee ni xamal leen ni rek euh, premier li liggéey li dégg ci nit nit ñi ñuy wax bëgg laa def lu bon ba pare naan la bii mooy première wax bu neex première lii fekk ni lu bon ak lu ñaaw lañ ci jublu moo tax borom bi subhanahu wa taala nag nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal naafiq yi xibaar leen xamal leen bu baax ni am nañu mbugal mu tar mu leen di xaar naafiq nag mbokk yi mooy nag mooy hypocrite mooy koo xam ni doo yàpp doo jën yàlla sax da ko wax ci biir waaw doo yàpp doo jën kenn xamul foo féete kenn xamul noo mel tey nga wax lii suba nga wax lee tey nga mel nii suba nga mel nee yow daal doo juste mukk mukk mukk ñooñu mooy naafiq yàlla ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxal naafiq yooyu ni yéen mbugal mu tar mu ngi leen di xaar ràññee woon nañ ci ku mel ne abdullahi ibnu ubay ibnu salul ak ay kemam saay-saay yi mu daan àndal group bandem boobu nga xam ne ay hypocrite la mooy ñoo xam ne dañuy feeñal ngëm fekk ni seen xol nanguwul loolu mooy hypocrite mooy naafiq kii feeñal ngëm fekk ni li muy wax ni moom la gëm gëmu ci dara ba dara boolo ci yàlla ni alladina mooy gaa yi nga xam ni yattaqiduuna dañuy jàppee alkaafirina yéefar yi awliyaa ñuy méngoo seen mbir di lonkoog ñoom min duunil muminina walis jullit yi jullit day bari xaritu jullit waay jullit war a fexe bari ay xaritu jullit waaye jullit boo xam ne nga yow daal jullit yi nga mënta defal yow doo seetaat sa bopp yow doo seetaat sa bopp nga foog jullit bu mënta def ak ki bu mënula def ak ki jullit mais loolu mooy la te ku dul jullit nga bëgg ko yenu yëkkati ko fonk ko jox ko cër bu mu amul waaye sa mbokkum jullit moom du dara ci yow ci sa kanam yàlla nee na loolu koo ko gis mu koy def naafiq la xam ne bu fekkoon jullit di xulloo ku dul jullit moo tooñ nii la ñuy def samay mbokki jullit la mais xam naa leen ñoo mel nii mais loolu mooy lan soo dëkkee ku jullit sax naan dëkk gi nga moo moo dëkkee ñoom problème sur problème ngay am ñoom ngay demal police ñoom ngay demal mais ñi nga bokkal lu diine doo am ak ñoom benn problème yooyu baaxul yooyu dal fa sax jarul di kafe ka wax ni nga fexe ba ki nga bokkalul diine nga mën a maslaxa ak moom di seq ak moom jàmm wax kay boo ko defee nag ci jullit ma rawatina nag fekk bu yéefar bu bon nga bëgg a xaritoog moom waaw yéefar ku gëmul dara ko xam ne yàlla gëmul dara kooku yow nan nga mën a doone jullit ba pare di xaritoog moom manul ne moo tax mu ni euh, naafiq yi mooy ñi nga xamante ni dañuy jël yéefar yi lonkoog ñoom xarit bàyyi fi jullit yi man xaritu jullit sax bëgguma ko te ni ab jullit waaw ah, baax na yàlla di waaw xam naa ni day souvent complexe mooy tax ñu koy def yàlla ni ay yabtaxuuna indahum ay izza moo xanaa ñoom dañoo yaakaar ni xaritoo bi ñuy xaritoo ak yéefar yi loolu dina yëkkati seen kot dina tax ñu fonk leen dina tax ñu jox leen cër ak tedd nga akuk màgg akuk tur la bëgg ak bàyyi xel gi leen di bàyyi xel moo tax ñu dem lonkoog ñi dul jullit yàlla di laaj ndax loolu lañ ca jublu yàlla xam na lépp yàlla xam na lépp ñu xam waaw ñu xam ni yàlla xam na lépp borom bi subhanahu wa nii ay ayabtaxuuna indahum al-izza waa xanaa ñoom dañuy sàkku ci ñii ak yëkkatiku ak daraja ak tur ak ak train de vie bu soppeeku ak rang social bu ñu bëgg tax ñu ni nañu lonkoog ñii te ba fi suñu mbokki jullit yi yàlla ni kaay leen nag ma wax leen fa inna al izzata lillahi jamian tedd nga teraa nga màgg mel nii mel naa loolu ci loxo yàlla la nekk te moom moo moom léppi tedd nga moom borom bi subhanahu wa waaw mu ni yàlla moom moom loolu te sax nag li ngeen di def dafa ñaaw yéen naafiq ndax waqad nazzala aleykum fi lkitaabi wàcce woon nañu leen ci yéen ci téere bi waxoon na leen ni an luy mbir tey mbir isa samiatum su ngeen déggatee ayatillahi aaya yàlla yii di alquran yukfaru biha ñu koy weddi wa yustahzau biha ak di ko yëj ak di ko saboote fala taqudu maahum bu leen toog ak ñoom xatta yaxuudu du leen dañoo dellu si fii xadiisin gayrihi ci beneen wax allah mbokk jullit yi lii lu garaaw ngi yàlla nee na boo toogatee ci ay nit nee na wax naa leen ko prévenir naa leen nag ku ci toogati ci ay nit ñoo xamante ni seen métier mooy weddi téere yàlla bi bu ngeen déggatee ñuy weddi alxuraan bi en tout cas non téere yi vraiment c'est dépassé parce que nag aussi jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom am na leneen lu jamono indi ñun kenn du ñu indil lu bees ci diina ji waaw ji ni mu nekkee yàlla xam na ni nii la war a nekkee wa raditu lakum al islaama diinan la wax te dina ko ci suratul maida waaye jékki-jékki non aussi jamono bu doxee dafa am téere yoo xam dafa war a xewi ngay dégg nit di wax loolu ngay toggam wa yustahza'u bi ak di fowe di fowe alquran boobu nag moo gën a garaawati bis bu jot ma wax ko ku mu neex defal sa théâtre waaye wax dëgg yàlla li nga thème yi nga war a mën a wax te doo ci jël alquran ji di ko fowe dafa bari nag waxut dëgg yàlla yow da ngay théâtre théâtre sa théâtre te bul jël alxuraan ji di ko fowe ak koo xamante ni faaw rek pour théâtre bi saf xorom ci moom faaw mu ni day julli ci biir théâtre bi waaye buy julli ci biir théâtre bi dina jékki-jékki teg fee mbuusum xaalisam wala nit di dox muy geesoog di romb di jàng alxuraanu yàlla ji di fo yaa ngi ci yoon wu gaaw ci toroxal la ak toroxal koo bokkal lu leer la la wax yaa ngi ci lu garaaw loo xam ne bul la jayee ngay jayee ba defe ne loola moo lay tax a siiw doo dem loolu doo ci dem doo ci mën a réussir yow waykat bi la même chose yow wax dëgg yàlla li nga war a way bari na wayal loo bëgg a way waaye ba fi alxuraan ji yàlla du ko kafe de lu leer nag yàlla du kafe kuy fowe alxuraanam ji jël alxuraan suñu borom bi fekk milliers yoo xamante ni yow lii xam nga ni du lenn lu baax nga dugal fa waya te kat xam ngeen ni si suñu réew léegi yaa ngi gis kër yu bari nangootu ñu way sëriñ si si si si boîte de nuit yëpp waaw léegi nag sëriñ si li leen fal alxuraan la mbokki yi sëriñ si li leen fal ba ñu leen di tudd alxuraan la njëgam nag ñoom la ñu nangu lool rawatina nag alxuraanu yàlla bi kon nañu bàyyi alxuraan ji ñuy fooy gis nga nekk ci réew mu ñuy fooy alxuraan sax danger la danger la parce que dina leen wax lu tax muy danger yàlla nee na ndax bu ngeen toogee ci ay nit ñuy weddi nee na wala di fowe alxuraan yàlla ni fala taquduma bu leen toog ak ñoom jóg leen ngeen ba leen fa xatta yaxuudu ba ñu xuusaat fii xadiisin xayrihi ci beneen waxtaan bu dul waxtaanu fowe alxuraan ngeen soo a toog ndax su ngeen ko deful innakum idan mislahum yàlla nee na su ngeen deful loolu yëg leen ni yéen ak ñoom yéen a yam képp bu ngeen deful loolu jóg fi ñuy fowe alxuraan yéen ak ñuy fowe alxuraan yéen a yem képp képp te li tax yam ak ñoom baaxul mooy yàlla daleen fay fekk rek fotong leen ñoom ñëpp jëme safara inna allaha jaamiul munafiqina wal kafirina fi jahannama jamia borom bi subhanahu wa nee na day rassembler day dajale ñi nga xamante ni ñooy naafiq gis nga naafiq dafa bona bona bon ba bona tati fi ko yàlla teg ci bon tegu fa sax yéefar boo tax ñoom la njëkkatu naa ramasser naafiq yépp bañ ñëw wal kafirina ak ñi weddi yàlla léegi nag boo dof dof loo ba toogoo nag naafiq yooyu ak ñi weddi yàlla ba ñu fekk la fa bu ñuy foto ngaa yi di yóbbu da ngay demaale de fu leen jëmee mu ni fii ma ñoom ñëpp naa leen dajale ci safara ñoom ñëpp jam yi an la yàlla wax seen du ma ci bàyyi kenn ba léegi rek yàlla di ñu wax naafiq yi alladina mooy naafiq yi mooy ñu bon ñi nga xam ni yatarabbasuuna bikum dañu leen di toogaadu toogaadu gàcce di xaar ci yéen ngeen am problème ànd ak yow di ree fekk ni mu ngi xaar rek lu bon rek la leen yéene waaw di leen di leen ndànku di leen xaaral déggal leen musiba bu dal seen kaw mu ne fa in kaana lakum fatxun su ñu nekkee yéen xeex am wala dara am ngeen am victoire boo xam ne ouverture la ak ndam yi bu tukkee ci yàlla xaalu ñoo na eh ah déet bàyyi leen ñu xel alam nakun maakum am ah, mais ñu ak yéen a nekkoon ñu ak yéen ñoo nekkoon kon da ñoo war a bàyyi xel nag ñun ci lañu ndax gis nañ fa intérêt wa in kaana lil kaafirina nasibun su fekkente ni nag yéefar yi am nañ benn saa yenn saa yi te très rarement lay am ñu am benn ndam comme la amoon ca xasootu Uhud rek xaalu ñu dem ca naafiq yi naan leen alam nastahwiz aleykum xanaa du ñun ñoo leen doon dimbali ci gaa yi di wax seen secret bu ñu demee di leen tiital naan bu ngeen songee ñee ñun ñoo doon def liggéey boobu te leen wa nam naakum ñu tere leen minal mu'miniina ci jullit yi ba mënuñoo dal seen kaw kon war ngeen xam ne ñun ak yéen a yem ñun gëmuñu ñee dara dañ faa nekk rek wax def nga ni nit lu bon lii nit mën na ko def métier yow foo dem ni foofu la lii it dafa garaaw nit da ngay am fenn foo féete ñu xam ne fii nga féete da ngay féete fenn mu leer ni yow fii nga féete waaye mënoo nekk ci diine ji ne ci caaxaan yi waaw loolu mënul nekk te nag ñun loolu problème la suñu suñu Sénégal xamatuñu nitu diine ak nitu caaxaan lépp dañ koo jaxase léegi di ngay toogee ci plateau diine yi noonu nga war a toogee ci plateau caaxaan yi noonu lañ ko jaxasee ba boo sàgganee yow boo ràññeewul sax dootoo dem hmm? ñuy waxal diine ji ñooy waxal caaxaan yi ñuy waxal caaxaan yi léegi mel ni benn melting pot lañu bëgg a créer moo xamante ni lépp dañ koy sëmbaxloo loolu lislaam du ko nangu na mu ni nag fallahu yaxkumu baynakum yowmal qiyaama nee na yàlla mooy atte diggante jullit yi ak yéefar yi yowmal qiyaama naafiq yi ñoom feelal leen di teg ñoom du leen ci booleegum ndax ñoom am na leneen lu leen yàlla réservé te incha allahu dinañ ci ñëw mu ni kon yàlla mooy def loolu di seen diggante bi leer nañ mu teg fële yéefar ya teg fële jullit ya macha allah mooy atte seen diggante ba mu leer bu baax a baax a baax yowmal qiyaama mu ni walan yajal allahu lil kaafirina ala al muminina sabila mu ne yàlla de mësula utal yoon yéefar yi mësuñoo am yoon ci kaw jullit te yàlla sax dañ ko doon may may leen foo xamante ni dañuy jàppe jullit yi comme ay seeni nooy neex rek fu ñu dajeeg jullit yi tëj ci ba doyal nee na yàlla du ko may yéefar yi moom loolu moom mbégte googu duñ ko am waaw yàlla du du du xirtal yéefar yi moo tax jullit war di ñaan wala tusallit alayna bi dunubina man laa yaxaafuka fii naa wala yarhamuna yàlla yàlla nag ñu dimbali ba bul xiirtal ci ñun ñoo xamante ni bu ñu ñëwee dañ ñuy yàqal moo tax yàlla ni du defal mukk yéefar yi aw yoon ci kaw jullit yi macha allah mbokk yi ñu ngi leen di affiché léegi numéro téléphone yi nga xam ne su ngeen bëggee participer ci émission bi si ngeen di jaar incha allah bokk ak jotaay bi yàlla yàlla defal ñu dégg yàlla na defal topp xam naa ne soreetu ñu daadeel léegi dina leen affiché numéro téléphone bi macha allah ngeen ànd ak ñun ci seen émission tafsirul quran wala sax ñu dem service commercial te ñëwaat incha allah aywa kon ñu dem mbokk yi numéro yooyu mooy numéro yi ngeen di àndeeg ñun ci tafsirul quran bi macha allah mooy numéro yii ngeen di gis nii bi ngeen di gis incha allah ku bëgg a participer si lay jaar mu ni kon yàlla de du may mukk yéefar yi ndam ci kaw jullit yi yàlla di ñëwaat ci naafiq yi ni innal munaafiqiina naka naafiq yi yu yuxaadicuuna allaha ñoom day dañuy jéem a nax yàlla wa huwa xaadicuum te yàlla moom loolu musaakala la ci wàllu balaaxa yàlla du naxanteeg ñoom yàlla day bàyyi ba ñu def li ñuy def yépp mu këppaat lépp seen kaw mooy wa huwa xaadicuum dañuy def li ñu bëgg a def yépp yàlla jëlaat lépp këppaat ko ci seen kaw ñoom ñu ko doon def noonu la suñu borom di def ak ñoom naafiq mu lay wax ba léegi ñan ñooy naafiq yi mu ni ñoom day wa ida qaamu bu ñu jógee ila yi ci julli ba ñëpp jàpp ni dañuy julli xaamu ñoom dañuy jóg ku saalaa jógu ku tayal la ñuy jóg bu ñuy julli sax julli ku tayal gu bon la ñuy julli ndax yuraawuna naasa ñoom day dañuy njistal ci nit ñi waaye wala yazkuruuna allaha illa qalilan waaye du ñu tudd yàlla lu dul lu néew ngeen teg foofu seen baaraam ñu jël mbokk mi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam ku baax na ngeen def ah mbokk moom rëcc na yuraauna naasa wala yadkuruuna allaha illa qalilan la suñu borom wax yàlla nee na naafiqii day dañuy ngistal ci nit ñi rek waaw waaye julli gi ñuy julli sax gëmuñu ko boo leen fekkee ci mbooloo ñu jox xamul leen tax a julli bañ ko leen ni yow mii yow kenn du la gis nga julli ah naa julli rek gars dañu bari wax fi nekkee julli woo fii la ñuy toog ñàbb la fi kenn ko ne di la rey wax ju dul jeex xam jàpp ma sax mais julli la rek naa ko dóor benn yoon loolu nag mën nga ko ci julli mën nga ko ci màkka waaye koor kenn mënu koo simile simulation mënul am ci koor mbokki julli bi ñu jël mbokk mu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ ziar naa lu bëree bëri ñu ngi delloo ziar bu baax soxna si naa defal ci yoon yaa ngi ci jàmm ñu ngi sant yàlla mën nañu xam yow la kan ak foo waaw maa ngi tudd Marème Diop. Mhm. di nekk Nouakchott. Nouakchott macha allah Marème macha allah. maa ngi ziar lu bëri bëri ci émission bi neex na ma. ñu ngi delloo ziar baax Marème macha allah. neex na ma gën tax na ma xam dara daal ci sama wàllu jullit. alhamdulilah alhamdulilah. maa ngi lay ziar lu bëri bëri yal na la yàlla fay. maa ngi lay delloo ziar bu baax Marème yàlla yàlla fay kontaan naa kontaan naa. jërëjëf Marème macha allah. jërëjëf. Marème bindu bindu bindu tey bi lan nga ci jàngat boo ñu ko doon wax. wallaay tax na. oh macha allah suñu mbokk moom rëcc na wooyu ñu ba gaa Mauritanie macha allah dimbali euh, dafay am solo bëgg nañu yéen ñii dugg incha allah ngeen wax ñu bind bu ñu daaneel rek ba ubbi téléphone bi lan ngeen jàngat ci bind boobu bu fekkente ne amu leen ay laaj yu ngeen bëgg leerlu waaye <coughs> ngeen wax ñu lu ngeen jàngat ci bindu tey bi lan ngeen ci retenir lan ngeen ci jël comme ay euh, leçon yoo xamante ne fas ngeen fas ngeen koo jëfandikoo loolu bëgg nañ muy feeñ ci téléphone yi macha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ku baax na ngeen def. maa ngi lay ziyaare bu baax sëriñ. maa ngi delloo ziyaar bu baax macha allah. maa ngi rafetlu wax dëgg yàlla waxtaan wi lee. jërëjëf sëriñ bi jërëjëf. Euh, xam naa ne nag boo ma nee loo ci jàngee ci bindu tey bi. Mm-hmm. danaa ni la euh, am na ci foo waxee loo xam ne. Mm-hmm. waroon nañ koo gën a jëmale ca kaw. Mm-hmm. mooy alquran ji. niñ ko waroon a jàppe Mm-hmm. loolu moom mm-hmm. loolu moom li ñuy wax ni nañ ko waroon a jàtte jàtte wunu ko mm-hmm. loolu nag sa kàddu ca kaw waaw loolu mooy dëgg kuy waaraate ku ne lool la war a wax dëgg la dëgg la wa maa qadarullaha xaqa qadri uh-huh. lii dëgg te wér te wóor mooy jafe-jafe yi ñu toll dara du ko lijjanti lu dul lii nga nekk di wax dëgg la muy alxuraan ñu wax ko dund ko itam te nag fii ak dundundu ko niñ ko war a dundee. Mhm. lu ñëw la ko gën a garaawoon rek a cay topp. dëgg la dëgg la. loolu daal wax dëgg yàlla jànge naa ko ci sa bindu tey. Mhm, wax dëgg yàlla maa ngi lay ziare. di mais mais xam naa ne du ma du ma du ma wax yow la kan mais du ma la bàyyi nga dem noonu yow xam nga ni boo defee ne xaw ma la nax nga sa bopp de. li ma la bëgg a wax mooy ñu ngi doon wax tey jii ci wàllu maandu. maanaam nit mm. ni mu war a maandu foofu war nga ci dikk macha allah ak mbokki jullit. waaw maandute moom. Mm-hmm. dafay dafa daf bi mooy liy sos ab ak ak baax. Mm-hmm. tey jii yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ci la yaroon euh, euh, saxaabaam yi. ci la bëggoon nit nit ñi mel. danaa la wax ni musula kenn musula gis xar kanamam soppi ko ba am lu ñuy wax am mer. lu dul da nga koo mës a indil ayibi waxtu woo ñëwee di tudd jaambur ci lu dul noonu ci kanamam mhm. kanam nga daf daan soppiku mhm. nga gis mu ni la mu ni leen la uridu an axruja ilaykum salima sadr bu ma kenn indil ayi kenn bu ma kenn waxal ci ka sa moroom lu dul loolu ndax damaa bëgg bu ma génnee bañ a amal kenn xaar ma yàlla macha allah noona nag la mu meloon noonu la jullit ñëpp war a mel macha allah léegi xam naa du ma la téye lu mais war nga ju dikkal ci naafiq aussi gravité bi mu am ci l'islam ab naafiq ni mu sonale l'islam waaw gravité bi mu am mhm. mooy nit ku nekk jàmm lay jéem a wut ci àdduna mhm. nit ñëpp nag mhm. yàlla nee na ñii naafiq ñoom ñoo dul am jàmm ba mukk te buñ demee fa ñëpp di ñàkk jàmm ñoom ñooy gën a ñàkk jàmm ak fi darakil asfali minan naar allahu akbar allah yàlla wax ko yonent bi seelu ko ni laa yadxulul jannata nammaamun allahu akbar ab rambaajkat du dugg àjjana mukk kon buñ demee ba jamono ji yàqu lool ku yëkkati kàddu rek ci keneen ngay teg wala ku yëkkati kàddu yàq ngay def mhm. kon war nañoo seetaat suñu bopp dellu si waat ci lii ngay wax muy alquran macha allah axi wa xabibi jazakumullahu xayran wa amin wa iyaakum yaa fadila kontaan nañu macha allah jërëjëf yàlla ñu ko yàlla fayal kii suñu mbokk daara la moo xam ne yàlla xam na ni fii ñu toog boo ñu fi jógoon mu toog fii dina def lu gën a am solo lii ñuy def macha allah jàmbaari lislaam la yàlla nañ ko yàlla fayal bu baax moo tax ba teye ko ngir baal ma pour mu mën a dolli ndax as ziyaadatu fil xayri xayri ku ko dégg rek xam ne kii li muy wax lu mu maîtriser la te lu mu xam la macha allah yàlla nañ ko yàlla fayal mbokk jullit yi ñu jàngat loolu mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci bind mi suñu mbokk mu wax léegi musul bëgg <clears throat> kuy ñëw di yàq nit ci kanamam ñu dañu bëgg loolu ñun dañ ko bëgg foo toog rek yow nit nga fay amee yent bi da daan énervé boo ko daan def loolu danaan bugguma bu may jóg lu dul ni sama xol bi day féex ci ñëpp waaye ji ma monte ci nit di wax nit lu bon bon ba may doon nit ba yenn saay ak nit di jàpp ma ba bu ma gisatee nit am lu may xool ci moom loolu bëgguma ku ma koy def loolu nag ku maandu du ko def ku maandu du jël nit ñi di leen yàq guddeeg bëccëg loolu nañ ko ñëpp xam yàlla nañ ci yàlla musal kon tey fi ñu yem ci bind bi yàlla dafay wax ci naafiq yi ni ñoom yuraauna naasa waaye wala yadkuruna allaha illa qalila borom bi subhanahu wa taala nee na naafiq yi lu garaaw la ñuy def lu garaaw la ñuy def moo ñoom dañuy ngistal ci bëtu nit ñi rek waaye ñoom du ñu bokk du ñu tudd yàlla lu dul lu néew gis nga du ñu tudd yàlla lu dul lu néew loolu bul jàpp ni sax ci biir julli gi dañ ciy tudd yàlla du ñu fàttaliku ni lii yàlla yàllaa tax ñu koy def lu dul lu nii parce que ñoom dañuy fo rek ñoom pour ñoom nekkuñu fi di julli pour ut ci tiyaaba wala daar ñoom dañuy caaxaan ne ay salaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa rahmatullah Oustaz. waaw ku baax na ngeen def ñu ngi leen di ziar. Oustaz ziar naa la baax a baax. maa ngi delloo ziar bu baax sëriñ di kontaan ci yéen rek. jërëjëf jërëjëf sëriñ sama sama yaay mu ngi lay luy nee na yow rek lay déglu fajar bu nekk. ndeysaan yow la kenn seen bi tur bi ak foo ñuy wooye. macha allah. Mhm. fajar bu jullee fajar yow dañuy toog di la seetaan. ndeysaan kontaan nañ ci bu baax yàlla na yàlla fay leen. waaw. yàlla bindal leen yiw nangul leen seen koor nangul leen seen jaamu yàlla macha allah def ñu dëgg-dëgg jullit sàmmal ñu suñu alxuraan macha allah ak suñu diine. macha allah mbokk moomu yàlla na ko yàlla fay fay way jur ba moom it macha allah ak way jur yëpp nag suñu yaay yëpp suñu yaay yëpp di ànd ak ñun ci tafsir bi saa su ne di ma koy waxee rek waaw suñu sama yaay yi nga xam ni foo na ñu ngi fi rek ci foo na ñu ngi fi ci àdduna saa suñu ne ñu ngi yëg seen ñaan ñu ngi yëg seen i jàppale euh, kenn ku ne fa nga toog am na ñu jot nañ ma wee am na ñoo xam ne booy wax dañ naan la wallaay sa yaay laa de danga ma da damaa jotul ci téléphone bi rek waaye xamal ni maa ngi lay ñaanal yéen ñëpp yàlla nañ leen yàlla yal na leen yàlla fayal ak defal leen yiw ak xéewal ci déglu bi ngeen di déglu tafsir bi ba ngeen man koo jëriñoo macha allah loolu dafa am solo macha allah fu ngeen mën a nekk rek ziar nañ leen wàcc nañ leen seen wàccuwaay waaye ziar nag sama yaay bu ñu wax yaay ndey ami mbeng yi ndey ami mbeng ca fan ok mu yóbbaale yiw yaay yëpp rek macha allah yaay yëpp mu yóbbaale leen géew ba mu des benn yaay nag boo xam ne moom xam na ne boole bu ma ko ci bu ci jéemee dugg it xam na ni bokk ci yàlla ñu ziar leen ziar nag suñu yaay yaay Fatou Niang di suñu yaay njaati gi fii ci Ndakaaru macha allah nekk fii ci Wakaam macha allah doom adjointe au maire maa ngi koy ziare moom it di ko wàcce wàcce waaye ak yaay yëpp rek comme ni ñu ko waxee mbokki jullit yi yàlla nee na naafiqi yi ñoom walaa yazkuruuna allaha illa qalila allahu akbar yàlla nee na duñ tudd yàlla lu dul lu néew kon ndekete ñàkk tudd yàlla day jur nifaq bi seen góor ga seen soppe ba Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh doon na wax ca wayam ba nan dikrul ilahi lil qulubi quutun in lam taish bihi fa hiya tamuut wax ca ni kon nag dee leen dëkkee di tudd yàlla ndax nee na tudd yàlla cib xool dafa mel ni lekk gi nit ki di lekk ni mu mel ci moom ci jëmb ji nee na nit bu noppee di tudd yàlla xol ba day dee comme kii noppee di lekk te muy dëgg ci toog rek ni def day day def grève de faim bu dëgg laa wax nag waxuma boo xam ne moom dañ saa yi nga ruq ruq fii naan waaye tooga rek nga ne grève de faim laay def toog fan lekkoo naanoo léegi rek say mbokk dégg sigil dégal nee na noonu la mel noonu la tudd yàlla mel noonu lay dundal xel nee na boo noppee di tudd yàlla nag sa xol booba macha allah day dee te day yàqu yàlla nañu yàlla musal ci xol bu dee yàlla nañu yàlla musal ci xol bu yàqu ndax borom bi subhanahu wa na képp koo xamante ni doo dundal sa xol euh, tudd yàlla day dundal xol gis nga àll yàlla ngeen ala bi zikrillahi tatma'innul qulub waaye naafiq mënu ko naafiq mënul loolu moom ñoom du ñu tudd yàlla lu dul lu néew a néew waaye bu ñuy julli sax julli ku tayel la ñuy julli lu gën a garaaw ko buy julli julli nit ku tayel lay julli wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala la yàlla ne naafiq buy julli day tayal kon képp koo xam ne da ngay tayal ci jullit ci julli seetal sa bopp de seetal sa bopp koo xam ne yow daal moom boo balaa sa àdduna tukki rek bala ngaa stressé wu ni allahu akbar bu desul lu dul julli sa waay julli gu mu ko xaaral ma julli mel ni dan ni la tey nga dee di mer te yonent bi alayhi salaatu wasalaam al alxabib ndeysaan bu problème yi masaana bari ci boppi jullit yi day wóolu Bilal ni ko arix naa bis salaati ya Bilal Bilal ñëwal nga bégal ñu ñëwal nga ñëwal nga féexal suñu xol yi ñëwal nga dindi stress bi ne ci ñun ci julli noddal Bilal ma ziyaare nag suñu Bilal yi nga xam ñoom lañu am fii suñu émission yi macha allah di émission bi laan ngeen koy am dimanche bu ne di ci woon ak mbokk yëpp rek ñu ànd ak ñun macha allah mbokk yi nga xam ne bëgg nañ sponsoriser émission de wax dëgg yàlla émission boobu moo ko ko taxaw ñu ciy dalal doomi jullit yi di leen jàngal nit ñuy nodde di leen ci defal concours pour nit ñi xam ne nodd du fo nodd du caaxaan kon ñu ngi ci woo ñëpp macha allah di leen woo ngir ñu ñëw sponsoriser émission boobu nga xam ne ñii nga xamante ni ñooy doomi jullit yi ay mag ak i ndaw ju nga ca yàlla yàlla fayal ñu leen bëgg nañ leen a bëggal bëgg nañ leen a teral ba ñu xam ni li ñu woon def si fii lu rëy la lu am solo la muy si seen émission bilaal di leen ko bàyyi xel Bilal day jàmbaar la woon joo xam ni bu problème yu masaana bala rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam woolu ko ni ko arihna bi salaati ya Bilal Bilal ñëwal nga bëggal ñu ñëwal nga féexal suñu xol ñëwal nga seral suñu xol ci loo koy serale mooy ci ci ci nodd loolu yi nañ ko xam beneen benn mbokk yi bokk na ci li nga xamante ni yàlla wax na ko te te mu yéeme te mu yéeme mooy ndekete naafiq traître la c'est un grand traître naafiq ndax wax dëgg yàlla koo xam ni ñi ngay àndal gëmoo leen te ànd bi ngay ànd ak ñoom dafa am loo làq ca ginnaaw ànd ba mooy bu ñu amee vingt victoire bu ñëwee rek nga ah, ne nga ñu ak yéen benn benn lañ maa ngi a ànd su defee ñëwee nga daw. ba sa tànk damm dem ànd ak yéefar ya naan xam nga ñun ñoo leen nekkal fee alam nastahwiz aleykum wa namnakum minal mu'minin ñoo leen nekkal fee di leen tiital di leen di leen di leen diaboliser ci ñoom ba ñu ragal leen di leen tiital nee ñoom loolu la ñuy defar yéefar kon yéefar yi war nañ leen a bàyyi xel benn li war a dalal xel xelu jullit yàlla wax na ko fii nee na naafiq yi def ko keneen def ko du tax yàlla utal mu ko yoon yéefar yi ci kaw jullit yi benn beet bokk na ci màndargay naafiq te ñu war ko xam tey jii mooy day fekk ku dul jullit muy ànd ak moom xaritoo ak moom kon jullit bu mel noonu seet ci sa bopp beneen beet bari na ñoo xam ne luy waral luy def loolu mooy c'est des complexes yàlla ko wax ay yabtaxuuna indahum al izza yéen kon ñoom dañu bëgg a mottalikoo ci ñoom moo tax ñu ne nañ ànd ak yi ñoo xamante ni fu ñu toll dañuy tiitaroo xarit non diw sama waay la léegi mu woo ma téléphone yow loolu ngay tiitaroo loolu ngay yëkkati ko pour yow ñu bàyyi la xeer pour ñu fonk la il faut nga tiitaroo keneen loolu baaxul amul njëriñ mbokk yi nit da nga war a xam ni tiitar yàllaa ko yor yàlla nee na inna akramakum inda allahi atqaakum ku bëgg am tedd nga ku bëgg am màgg ku bëgg a ter doon ku am solo ci àdduna na doon ku ragal yàlla ragal yàlla moo leen di teral moo leen di tax a siiw moo leen di tax a baax nee na képp ku bàyyi nag ragal yàlla bëgg mottali koo feneen foo xamante ni ci ay caaxaan la defe ne ànd ak i caaxaankat ànd ak i noonu lislaam ñu am seen alal am ay mooy moo lay yëkkati nax nga sa bopp kon képp koo xamante ni façon yéen ànd ak jullit yi te képp kuy caaxaan nga ngay tiitaroo sama xarit la loolu garaaw fekk koo xam ne defarul lislaam dara yow ngay tiitaroo ni kooku mooy sa xarit bëgg ñu leen di gis bëgg ñu xam la ak moom loolu lu garaaw la yàlla nañ ci yàlla musal mbokki julli di seen tafsirul quran jeexul waaye nañu teg suñu baaram foofu macha allahu bu ñëwaatee nag ba léegi continuer ci naafiq comme ni ko suñu borom subhanahu wa taala waxe sant bu baax gërëm waaye di ndokkeel bu baax di ñaanali suñu sponsor bi ànd ak ñun di meew xalib di waa Sénico macha allahu ziara abdullahi dia alhaji abdullah di suñu mag ak waa Sénico yëpp ñaan yàlla yàlla yàlla gën a suqali kër gi nañ ñëw ci émission bilal bi ñu ngi leen ciy xaar aqulu qawli hada wa astaghfirullah nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.